voilà monsieur le maire tënk ko rek parce que xam naa ne jot bëreetul te ne nga da ngay dem euh, samay question bi njëkk mi ngi soxal dialogue bi je pense que ñëpp la intéressé par rapport ak appelu chef de l' bi euh, la moo ciy sa xalaat di nga ci bokk wala déet ñaareel bi euh, li xew keroog ci forum bi amoon ci wàllum économie solidaire ak sociale ñu gis ci image yoo xam ne camp bi nga bokk nee nañu dañ ko détourné waa présidence ñoo ko jël def ko wàllum politique maa bëgg xam ba xam gis-gis boobu nga ci am attaques yu bëri topp na ci aussi jóge ci ñi nga bokkal benn camp ñuy leen di wax lu nekk muy yow muy Khalifa Sall Ousmane Sonko démb tamit ci dernière euh, sortie wam wax na que ne am na ñuy rencontré Macky Sall en silence am na ñu décidé wax na sax kenn koo xam ne nee na ko président Sall nee na ma euh, jugement bu njëkk bi ci affaire Mame Mbaye bi dafa rëcc ndax y avait un juge Pastef maintenant appel d'en rattrapé wu ñu bari seen xel dem ci yow nga confirmer léegi rencontre bi donc xel def ciy ñaaw par rapport ak ñetti question yooyu boo ñu ci mënee leeral s'il vous plaît. waaw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ginnaaw bu ñu sante yàlla euh, wax lu ma fi indi tey du lu ma fi indi tey tamit mooy euh, waxtaan ak mbokk yi xamal askan wi ndax ñu mën a xàmmee ak mën a ràññee man lu ma gëm mooy kilifa day am bàmmeelu biir lu laa gëm parce que ci loolu lañ ma yare ma bëggoon tamit wax ci leer le 26 janvier ci at bii 2023 laa taxaw ci télé bu ñuy woowee Walfadjri ak site internet bu ñuy woowee Seneweb man ma sàkku ci président Macky ñu teg bal à terre woote waxtaan kon waxtaan bi du waxtaan bu Macky Sall woote du gu Macky Sall gu Barthélémy Diaz la ma bëggoon wax ci leer mooy benn beneen bi nag ma bëggoon tamit askan bi bàyyi xel ci lu may wax ba ma koy lancé 26 janvier 2023 ak tey presque ñeenti weer na mosu leen dégg benn kilifa ci yeewi askan wi bu fi yëkkati ay kàddu ne ñoom d'accorduñu ci du Barthélémy Dias wax kenn ci ñoom waxu ko te ñoom ñëpp am nañ sama numéro téléphone ñoom ñëpp xam nañ ko xalifa Sall mooy suma kilifa bu ma toogal ci conférence des leaders te wax naa lu tax ma woote appel au dialogue dama ne man lu ma gis dalul suma xel parce que benn buum la ak ñaari côté ñaari camp nag ku nekk tey benn côté bañ a bàyyi te ku nekk mi ngi xëcc ku nekk ngi xëcc ñaar rek mën a am kenn kii ëpp doole keneen ki xëcc am ndam mais lu ma gis nii gisuma ndam fii gisuma ndam fële te wax naa ko ci émission yi ma leen te dama am xel ñaar parce que ñu toogulee waxtaan lu ma gis mooy buum bi day dagg te buum bi su daggee ñaari côté yëpp ñoom ñaar ñëppay xalangu te ala kulli al dina am kuy ilif Sénégal te ci suma xalaat bu gàtt kuy ilif Sénégal gisuma ko daal mu doon lu ñuy ku ñuy woyee civil mooy lu ñuy woyee civil mooy moo xam société civile lay bàyyeeku walla moo xam ci partie politique yi lay bàyyeeku wala moo xam feneen fu munti bàyyeeku ma ne man dinaa lancé un appel loolu moo waral Barthélémy Diaz lancé appel le 26 janvier 2023 donc ku fi taxaw tey nga ne loolu mooy appelu dialogue président Macky Sall wax dëgg yàlla da ngay fooy sa xel ba ma lancé appel bi nag mu am ay ñit bokkuñu ci politique politikuñu ñooñu daal di jaar ci ay ñit pour mën jokkoo ak man ñu jokkoo ma laaj leen neen est-ce que yéen mën ngeen jël garanti que yéen mën ngeen wax ak président de la république ñu ne ñun mën nañ jël garanti wante est-ce que yow mën nga jël garanti que yow tamit mën nga waxtaan ak sa leader yi mën leen man ñaari ñit laay waxal ci coalition bi parce que lépp lu may def ci politique ak ñoom ñaar laa koy seqal kenn ki mi ngi tudd xalifa Sall mooy suma leader politique keneen ki mi ngi tudd Ousmane Sonko ma jàppee ko mu suma doomu ndey ci politique ñu d'accord ci loolu ñooñu su ma juumulee ñoo nañ suma kër ñaar ba ñetti yoon te su ngeen su leen neexee yenn ngeen dem suma kër ngeen xool suma kër ça veut man tey su ma cër mënuma toog fi ne damay joxe ay preuve mais ku ma woo ci yenn yi ma fekk si la ci yow parce que nag du ma nangu kenn di ma dëkkaloo fu ma dëkkul man suma kër yëpp ay caméra la kuy dugg suma kër dañ lay gis kuy génn suma kër dañ lay gis ak heure bu munti doon ñoo ñooñu maa ngi leen di jéggalu parce que ay kilifa lañu te amuñu benn intérêt ci lii yëpp ñu nangu sol seen dàll ñëw di waxtaan ak man pour mën a dem jokkoo ak président pour mën a convaincre président que man damaa sincère. ñooñu ñëw suma kër ñetti yoon saay bu ñuy ñëw suma kër yëkkati naa suma téléphone woo naa Khalifa Sall ne ne ko ñëw nañu lii la ñuy waxtaanee ma raccroché ma woox Ousmane Sonko ma ne ko gars yi jaar nañu lii la waxtaan te am naa ci yaakaar ñoom ñaar ñëpp kenn musuma wax d'accord ci lii ñoom ñaar ñépp te ñu may dégg dem nañu ba ci waxtaan bi man laaj. ñoom ñaar ñu ma àndal ma leen est-ce que yéen bi ngeen d'accord suñu ñu day waxtaan laata waxtaan bi di am est-ce que d'accord ngeen jokkoo ak président Macky Sall téléphone saa fonte jàmm ak moom nu ñu ne ma d'accord kon loolu lu muy firndal mooy ñooñu ay nitu ay nitu jàmm lañu amee amee dëgg ñoom ñu doon euh, ñu doon euh, ñu doon ñëw pour le compte du président Macky Sall ba ñuy toog di waxtaan di waxtaan ñu ne ma est-ce que yow Barthélémy Diaz est-ce que yow nangu nga toog ak président ma na leen nangu toog ak président dafa am condition man du ma dem pale man duma dem këru président Mermoz te nangul naa leen tamit président de la république président la mënul ñëw suma kër kon dañuy wut terrain neutre ñu toog ñu waxtaan man leen teg ci nag ngeen waxal ma président gàcce bu Sénégal am ci forum de l'eau bëggoon naa ñu waxtaan si parce que ñu ngi waaja a ñëw dalal forum mondial sur l'économie sociale et solidaire te dama bëgg moom mu ñëw teew si ñëw présider cérémonie bi ñoom ñu def lu ñu def ba yàlla def ñu ne bés bii ci waxtu bii ci bërëb bii dinaa toog ak président Macky Sall la dernière personne avec laquelle j'ai parlé ba may dugg ci bërëb bi c'était Ousmane Sonko on a parlé pendant plus de 30 minutes au téléphone man ak moom ci ay stratégie bëgguma wax parce que lii du suma cër mais les Sénégalais ont droit de connaître la vérité parce qu'on doit se respecter ñu toog président egsi alors monsieur le maire de Dakar ma ne ko monsieur le président de la République audience boobu man ak moom kese ak yàlla man ak moom kese ak yàlla président nangu déplacé wu ñu waxtaan ma ne ko président gàcce bu ñu amoon ci forum mondial de l'eau bii mën na ñàkk te dañuy dalal forum bi ci bërëb bi ci waxtu bi ci date bi ma bëggoon nga ñëw fekk si euh, waxtaan bi parce que économie sociale ak solidaire mooy daanaka ci gàttal lu ñuy woowee Sénégal secteur informel tey su ngeen jëlee tey ndaw ñi liggéey tey Sénégal am xëy 90 pour cent ndaw ñi yëpp ñu ngi ci secteur informel donc ma bëggoon yow nga ñëw siggil dakaar wante sargal Sénégal parce que lu jotoon xew ci forum de l'eau yow nga jaar nii man ma jaar na le loolu rafetul te jeux olympiques de la jeunesse tamit mi ngi ñëw yàlla ko xam ku fiy nekk président de la république mais man président dama la bëgg xamal ne ni yow doo suma noonu te yow xam nga ni bu xam nga bu baax a baax que yow doo suma noonu suma adversaire nga te président àdduna du soppeeku ba man ma ànd ak yow mu ne ma loolu xam naa ko Barth ma ne ko président yow ba équipe nationale football gagné coupe d'Afrique da nga ma woo invité ma ma ñëw mu ne ma loolu am na ma ne ko yow ba ngay inauguré stade Abdoulaye Wade bu bees bi Diamniadio da nga maa invité ma ñëw mu ne ma loolu am ma ne boo may invité 4 avril damay ñëw mu ne ma loolu am na ma ne ko lu tax man su ma la invité yow doo ñëw mu ne ma d'accord dinaa réfléchir ma jëli. ma ne ko président damay jël engagement duñ fa yuuxu kenn du politique moo ñu fa yóbbu duñ fa tàccu kenn Sénégal rek dañuy sargal mu ne ma d'accord dinaa réfléchir dinaa la revenir noonu la mbir bi demee ci affaire u forum bi ñu commencé nag xuus dugg ci politique ma ne ko président mu ne man naam ma ne ko man duma candidat loolu yàlla dogal namuma candidat ma ne ko wante dama ànd ak su ma mag ñu koy woy xalifa Sall te dañ ko jaay doole maa ngi jóglu nag ci kàddu yi mën nga ci bañ a ànd mën na bañ a doon sa xalaat wante dañ ko jaay doole jaare ko ci politique galgal ko bañ a bokk ma bëggoon ñu waxtaanee waat kaawu xalifa Sall ma ne ko beneen bi tamit mën naa juum maa ngi lay jóglu ci kàddu yi lu la constitution may ci sañ-sañ mooy dangay ngay organiser élection doo organiser sélection ma ne ko yow doo sélectionneur ñu xaw a sax kaf tuuti ma ne te fii wax dëgg yàlla dama gis suma yenn doomu ndey dañ leen di jéem a galgal ma bëggoon ñu waxtaan ci parce que ñoom dañu nar a bokk ma ne ko te président maa ngi jégalu ci kàddu yi nag parce que xam naa doo ci d'accord ak man ma ne ci jàngat bu ma am ci constitution yow amoo droit am troisième mandat mu ne ma ak lan ma ne ko président dama bëggoon ñu waxtaan ci fichier bi mu ne ma ak lan ma ne ko dama bëggoon ñu waxtaan ci révision L29 ak L30 bu code électoral mu ne ma ak lan ma ne ko président Sénégal dafa am ay détenus politiques mu ngi ci kaso yi sàccuñu fenuñu reyuñu kenn amul benn Sénégalais bu leen plainte yow soo jàppee nii amul détenu politique man lu ma jàpp mooy dafa am détenu politique ñu ñor ko waxtaanee mu ne ma ak lan ma ne ko président mënuñu nekk. saay bu Sénégal amee président bu bees ñuy bëgg nelawal sénégalais yi wala di bëgg a lëndëmal seen seen xel dañu nar a teg lu ñuy woy clause d'éternité mooy ba Ilayo Midine lii di deux mandats pour président kenn mëntu ko laalaat <laughs> mu ne ma ah bon mu ne ma yow xam xalaat nga sa gars yi dinañ nangu waxtaan ci li yëpp ma ne ko président heure bi nii ginnaaw yow ak man ak ñu ma fi indi ak yàlla ñaari nit kese képp rek donc ñoo xam ne ni maa ngi toog fi ak yow ba may dugg jot naa leen téléphone te su may gél tamit dinaa leen woo téléphone kenn ki mi ngi tudd Khalifa Sall keneen ki mu ngi tudd Ousmane Sonko mu ne ma ah bon ma ne ko waaw ma ne ko te am naa yaakaar suñu toogee waxtaan dinañ jubóo mu ne ma ah bon ma ne ko waaw ma ne ko parce que président lu may gis nii arrangé wu la arrangé wu ma mu ne ma lan nga gis ma ne ko man lu ma gis mooy yow doo bàyyi te ñun tamit du ñu bàyyi ma ne ko te buum bi day dagg ma ne moom nga gis ma ne ko waaw ma ne ko te buum bi su daggee du la arrangé ñun tamit du ñu arrangé mu ne ma d'accord kon baax na dinaa ci xalaat ma génn woo ñu may woo wax leen lu mu leen di wax kon su amee ci seen déclaration yi kenn ku njëkk a wax ne que moom sax xalaat na ni que gars yi ñu ngi waxtaan ça fait pas sérieux tu es informé en amont pendant et en aval mooy dëkk les Sénégalais nous connaissent moi j'ai 18 ans d'actif sur ma carrière politique j'ai jamais été pris à défaut de déloyauté ou d'infidélité ou de trahison je suis un pur produit de l'opposition politique sénégalaise et je suis pas candidat à l'élection présidentielle quel est, quel est l'intérêt que j'ai donc tey alors il semble que suma xarit Ousmane mu ne waaw dama ko nekk Macky daf ma nekk benn juge Pastef moo ko jugé xaw ma lan nag xaw ma nu ma ko waxee mais Ousmane <laughs> moom xam na ni que su nekkoon juge Pastef du ko fëgg 200 millions aman moom xam na ko te man lu ma seq ci waxtaan ak président Macky Sall. munuma ko fësal du suma cër lu ma ci noroon wax ak Ousmane Sonko wax naa ko ak Ousmane Sonko féetoo na boor lu ma noroon wax Khalifa wax naa leen ko te ñoom ñaar ñëpp kenn ci ñoom ñaar ils étaient pas opposés au dialogue yow ku dem ba ne la d'accord naa jokk ak kii téléphone ñu saafonte mais kooku sax il est d'accord pour le dialogue je ne vois pas aujourd'hui où se trouve le euh, problème lu tax nit ñi. di ñu bëgg a dëkkaloo fu ñu dëkkul di ñu xas di ñu saaga ak di ñu bëgg a mais mais ak di ñu bëgg a diaboliser ak tamit di bëgg a manipuler askan wi duñ ko nangu non duñ ko nangu ñun duñu ay muuma maa ngi jógalu nag ci kàddu yi parce que muuma moom nattu bu la yàlla teg ñun ñun duñu nous avons une bouche pour parler hein une tête pour réfléchir et nous sommes assez courageux pour nous défendre maintenant chacun assumera ses responsabilités du moom la ngay woote on avance en avant rek mais ku nekk assumer ses responsabilités parce que nag nit bu dem ba ne la diw mooy suma candidat diw boobu mi ngi tudd Khalifa Ababacar Sall wante su ko yàlla mayule affaire ba mu mën a bokk man diw laay jàppale en l'occurrence Ousmane Sonko kooku wàccoo na ak yow man kenn gënuma yellool Sénégal candidat élection présidentielle j'ai fait trois mandats à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur deux mandats à l'Assemblée nationale membre du bureau de l'Assemblée nationale maire de la capitale sénégalaise te wax dëgg yàlla Sénégal ñi ñi mën nañu bañ na ànd ak man wante gëmuma gëmuma leen ni que gars yi dañ ma jéppi parce que defuma fi lu tax ñu may xeeb yéen su ngeen toogoon depuis le 26 janvier 2023 su ma Ousmane Sonko woon téléphone wala mu jaar suma kër comme il le fait souvent na ma Barth d'accord uma ci dialogue bi je n'aurais pas continué et il le su ma Khalifa Sall woowoon na ma Barth sa appel au dialogue du 26 janvier andu ma ci du ma xuus ñoom ñaar ñëpp ñu may dégg j'ai fait preuve de fidélité de loyauté avec eux et de transparence donc qu'est-ce qui se passe balaa may dee mu am ay nit jóg tey ne duñu euh, duñu dem ci dialogue bi su leen neexee wante ñoom dafa am lu ñu lu ñu fàtte askanu Sénégal lu ñu fàtte askanu Sénégal mooy su amee élection suba ñoom dañuy bokk wante du ñu fàtte wax askanu Sénégal mooy su amee élection suba kii di Khalifa Ababacar Sall du bokk ma yokk ci nag du ñu fàtte wax senegal mooy ñoom lan lañu jot a def ci pexe moo xam ci doxalin moo xam ci lu munti doon pour que Khalifa Sall mën a bokk mais loolu tamit dañuy il faut qu'on se respecte tey senegal nu ko Sénégalais noonu déggee noonu la mbir bi tëddee man inventé wu ma dara dafa am ay nit ñu ne ñoom fu ñu nekk candidat élection président ñoom jaral na leen lépp lu ñu am ci nguur gi moo xam ay poste ministre moo xam ay poste institution ñu delloo lépp Macky Sall nekk candidat ñun musuñu commenté loolu parce que seen droit la ñu nangul leen ko mu am ñeneen man duma ma inventé man dama leen di wax lu fi am mu am ñeneen ñu ne ñoom pour ñu nekk candidat ñoom jaral na leen ay centaine de bakkan di rot senegal te ne seen yaay juraat man xasuma kenn mais loolu lañu wax ñoom loolu moom daf leen ko jaral ñu nangul leen ko waaw ñun ñu ne ñun njabootu xalifa Sall ñun ci su ci suñu xalaat bu gàtt ñun pour ñu nekk candidat ñun d'accord nañ dem dialogue politique pour waxtaanee suñu candidature ak waxtaanee tamit nu Sénégal noree dem ci élection yi pour mën ci dugg ci jàmm ak salaam gën ci jàmm ak salaan ay ñit nag nekk loolu ala kulli àll duñ ci ànd bëgg ñu dëkkaloo fu ñu dëkkul ak di ñu saaga mais ñooñu dañuy fooy seen xel ma biiralaat wax ci fii man dama bëgg wax ci leer kenn feesul suma bët maa ngi tamit jógul ci kàddu yi ginaaru kenn nenu ma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 wante dama ne Dakar bu ñuy fal Barthélémy Diaz xamoon nañ bu baax a baax a baax que ñu ngi fal naanaan fa laa yem ci wax ci te man bëgguma teesante ak kenn parce que du suma cër wante lu ëpp tuuru ci ay wax dafa doy xalifa Sall ne patt rek di ànd ak stylam ak yaram ñu koy saaga di ko saaga mel ni moom amul yaay maa ngi jóge ci kàddu yi mel ni moom amul amul soxna mel ni moom amul ay mbokk mel ni moom amul njaboot ñu koy saaga à partir de maintenant saaga yi jeex na ku saaga rek di nga xam ne yaa ngi soog laal laalaalaake parce que ça ne continuera plus Yewwi Askan Wi nag moo tax ma ne damay communiquer lépp ngi seen loxo jàmm su amee yenn la su yàq ko tamit ngeen gisee ko noonu ak déggee ko noonu parce que ñun tooñuñu kenn mais nag du ñu nangu kenn taxaw këram ndekki ba suur wala reer ba suur taxaw ne. diw na ñu am lii wala diw na du am lii yaay kan foo ko teg yaay kan loo fi liggéey te liggéeyuñu ko loo fi daj te ñun dajuñu ko ci dëkk bi nit ki su la yéenee da nga koy yéenee tamit loolu mooy gor loolu mooy jullit ñun ñëpp ay jullit lañu kuy jullit mooy kuy julli et on prie le même Dieu yéen gis ngeen fi ba ñuy installé charte yeewi askan wi gis ngeen ko fi leader taxaw fii ne man dama ne lii du ma ko waxaale ak kenn dangeen di inscrire par force amnistie pour Khalifa Sall waaw wala déet tey nee na moom buggul amnistie naguñu am amnistie te ñi ñun ñii sax suñuy demee sax pour wuti amnistie amaana sax ñu lor askanu Sénégal ba amee leen ak wax jooju rafetul maa ngi jógu ci kàddu yi rafetul nit ki mënul nekk sa doomu ndey di la wax yu mel noonu parce que yow soo jàppee ni que yow pour nga doon candidat jaral na la ñu boom ay centaine de sénégalais te sa yaay noonu juraat yow soo jàppee ni wax jooju doo amel sénégalais yi ak waaw yow soo jàppee que ñun wax dëgg yàlla ñun amnistie moo tax ñu amel sénégalais yi ak wax dëgg yàlla man je préfère ne pas commenter wax jooju damay bàyyi sénégalais ñu apprécier loolu moo tax ma toog fii man du ma ak kenn. mais biralaat wax ci kenn feesul suma bët ñu ma xamul rek dama ne ñu ma ñu ma xamul ba heure bi ñooy taxaw di ma toiser moi j'ai dit non à Ousmane Tanor Dieng ancien secrétaire général du parti socialiste tout puissant Khalifa Sall bii wax naa ko non du benn yoon du ñaari yoon <laughs> si vous pensez que je vous dirai pas non c'est que vous n'avez absolument rien compris dama ne mbokk yi appel bi au dialogue du appelu Macky Sall Macky Sall ci boppam man dama ko appelé appelé ñeneen ku bëgg a ñëw ñëw ku bëggul ñëw nga toog sa kër ñu respecté sa position lu may wax ci su ma jumulee wax nga ma tamit ci waxu ci waxu grand théâtre nu mbir bi tëddee foofu grand théâtre xam ngeen président de la république su ñëw ci xew daanaka ñun même suñu garde corps yi doo leen gis ci photo yi ñoom ñëpp dañ leen di évacuer suñu protocole lekk moo fay nekk te kenn benn ji rekk fay nekk président dafa ñëw ñu woo ma ne ma naa ànd ak madame le ministre bu may jaajëfee au passage ñu dem gars yi nañu nañu taxawee nii ñu taxawee noonu président ñoo wàcc ci otoom ñu nuyu ko dugg ak moom ci stand exposition yi ñu ànd ak président visité génn foofu protocole bi yóbbu ñu fu ñuy wooye salon présidentiel man musuma musumoon dugg foofu ma dugg toog mu am président bi am ministre bi ak man ak euh, je crois photographe bu président de la république ak bien sûr protocole bi ak sécurité bi ñu ne dañuy dem ci salle bi ma ne ah, président maa ngi jégaluwaa ah, dama am ay gan mu ne ma ah bon ma ne ko waaw mu ne ko damay invité Khalifa Sall moom mooy maire honoraire bu Dakar damay invité tamit soo Soham El Wardini moom moo tax tey bés bi yàlla baaxee ñu ko tey Sénégal mu ne ma ah bon ok ma ne ko dama invité tamit sa mag ministre d'État président conférence Yewwi Askan Wi mooy Habib Sy ma bëggoon rek ngeen nuyoonte balaa ñu dem ci salle bi ma ne ah, d'accord ñu dem woo leen ñu ñëw ba ñuy dugg ak ba ñuy génn matul ñaari minute Khalifa Sall ci gàttal moom waxul dara Habib Sy su ma juumul am na lu ko président wax ci ay kaf mu ne président ah yow xam nga kuy Habib Sy Habib Sy bu nga xamoon moo fi nekk ba tey loolu mooy fulla ak fayda bu nga xamoon moo fi nekk ba tey président xaw a kaf ak moom ñuy waaj a dem ma jàpp loxo président ma ne ko président ma bëggoon leeral benn wax mu ne ma abon ah lan la noonu ma ne ko appel bi du sa appel suma bos la maa ngi lay jógalu nag ci kàddu yi wante ma bëggoon wax ci leer fii man maa lancé appel le 26 sept le 26 janvier 2023 président ne ah monsieur le maire de Dakar day wax na dëgg lii appelu Barthélémy Diaz la mën a leen appel bi lenn lay ñaan yàlla mooy yàlla na yàlla tàpp xol yi dellu siwaat xel yi ñu mën a toog ñu waxtaanee Sénégal ak ëllëgu Sénégal ma ne ko président am na loo bëgg am am na lu ñu bëgg dañu toog waxtaan maintenant nag ma gëstu côté Habib Sy ma ne ko président Habib suñu waxtaanee. ñu am 20 points suñu d'accordulee ci 20 points yëpp na ngeen ko déggee noonu ça veut ñu ñëpp matuñu kilifa donc man lu may ñaan yàlla mooy suñu génnee ci lii yëpp ñu mën a toog ñu waxtaan ndax ñu bokkul heure bi ñu mën a waxtaan seen dossier ndax ñu mën a bokk ñu nga xam ne ni ñu ngi leen bëgg a galgal te ñëpp xam nañ que tey ci dëkk bi y a des dossiers c'est pour éliminer des gens loolu mooy dëkk parce que du ñu laay wax ci ñu nañ ko waxtaanee. ma ne ko parce que man am na lu ma jàpp ne ni que loolu dafa c'est de la c'est de la surenchère politique dégg naa fi kenn mu ne suñ ko bàyyee moom mu candidat midi midi moom ne la moom gagné na élection yi mais kooku moom xam na lu muy wax na da koy wax nii rek pour fuural moom xam na ko parce que Sénégal mbokk yi heure bu ñuy wax nii Sénégal kenn amul 35 pour cent ci élection kenn kenn kenn amu ko fi sondage yi ñu ngi fii dernier sondage bi matagul trois semaines dañuy politique fii pour que góor wala jigéen nekk candidat buy gagné premier tour il faut mu nekk candidat de lu ñuy woowee ci tubaab coalition de coalitions mooy maanaam nga nekk par exemple candidat wu yi ak Wallu aha boobaa nag mën nga am yaakaar jàll premier tour mais tey Wallu am na candidat te yi am na ñeenti candidature yu fa nekk ñëpp dégg nañ président Malick Gakou ne candidat la honorable député Déthié Fall nee na candidat la Ousmane Sonko nee na candidat la Khalifa Sall nee na su ci yàlla àndee incha allah dina bokk <coughs> waaw maintenant fan la ñu di jàll ba am 35 pour ah, am cinquante 51 pour cent fan fan moo tax man lu ma gëm mooy ñëpp na la bokk ñëpp donc ba ñu jógee foofu ñu dem en salle. bon en salle man def naa suma discours président wax lu muy wax et puis bon ñu ñibbi c'est tout y a pas eu autre chose que ça je pense que est-ce que am na beneen question bu ma bu ma répondrewul bi ci waaw mais loolu wax naa leen ko ne naa leen Ousmane moom moom xam na lu ma ko wax te Ousmane xam na ni que man suma cër mooy mënuma taxaw fii di wax c'est pas possible non mais parce que Ousmane sait ce que je lui ai je l'invite vraiment à revenir à de meilleurs sentiments moom la foofu rek laa mën a yem parce que lii yëpp ça ne va pas le rendre euh, comment dirais-je encore candidat ça ne lui garantit pas la candidature parce que je je je je suis désolé je ne reconnais plus certains acteurs politiques là on ne fait plus de politique ah fii y a des gens qui sont dans les enfantillages maa ngi jógul ci kàddu yi parce que man du ma laay wax ci fii àdduna la wéet gore wéet di gore man je pense pas que j'ai gardé les vaches avec certaines personnes on n'a pas joué au billet ensemble waaw ñu ma doon petite Carène Dakar xam nañ seen bopp ñu ma doon potu meew potu meew xam nañ seen bopp ñu ma doon ànd di sàcc ñambi suukar xam nañ seen bopp donc ceux avec lesquels j'ai grandi on se connaît donc ñu nga ñu nga xam ne ni ñoom mag man ak ñoom dañu dañu dox daje ci politique il faut seulement qu'on apprenne à se respecter parce qu'il y ñun rus nañu di ko wax ci ay nit wala di ko teg seen kaw der à partir de maintenant à partir d'aujourd'hui na ko ñëpp déggee noonu ku bëgg a jàmm am jàmm ku bëgg leneen am leneen nous n'avons peur de personne kenn feesu suñu bët kenn kenn ken kenn kenn mais nag respecté nag ñëpp parce que Sénégal moo ñu ñor tey soo taxawee di wax yenn yow yow yow yow xam nga ni que waxu politique dafa am yow naka la nit di bokkee sa parti te état yëgu ko nak la nit di bokkee sa parti te état di ko jox sa dossier nak la nit di bokkee sa parti di la amende di la di la alamande deux cent millions il faut qu'on se respecte te lu ma waxante ak président Macky Sall pour que mu nangu ñëw ci invitation bi du ma ko fësal mais jox jox naa leen des éléments d'appréciation lu ma jot a wax ak président Macky Sall pour mu nangu le principe du dialogue mënu ma wax lépp mais lu ma mën a wax na ko askan bi déggee noonu président makisal nangu la toog ñu waxtaan te wax naa ko Khalifa Sall du son noon Ousmane Sonko du son noon te ñoom ñett ñëpp d'accord jokkoo téléphone alors subitement on veut nous faire le coup de l'amnistie un coup d'accord naa beneen coup bi d'accord duma ci amnistie bi un coup d' accord naa ci dialogue bi un autre coup d' accord ma dialogue bi man soo ma waxoon d' accord ma dialogue bi mais man duma ma xuus man du ma candidat eh way lii nag di xanaa moom neexatul man du ma man su ngeen ma waxoon yéen ñaar ñëpp baxte arrêté la d' accord ñu appel bi d' accord ñu man duma ma xuus dama xuus ngir Sénégal ak ngir jàmmu Sénégal maa ngi ko leen wax léegi nii. xam naa wolof bi du ma mën a guddal parce que gis ngeen tey nu ma jekkee sax damay dem Touba maa ngi nii noonu dem tubaa dem seeti suma doomu ndey di suma sëriñ sëriñ Bass Abdou Khadre doon ko jox wàccuwaayam ak tamit comme nu ngeen ko xamee rek dëkk dafa am nu mu tëddee parce que ñun dëkk bi dañu am ay kilifa te kilifa yooyu bu dëkk bi xatee bu dëkk bi tàngee dañ ci jot dox ah, ay jéego yu am solo. tey su ma waru gar la man ma delluwaat ci kilifa yooyu wax leen ci lu ñu nekkee ñun tey te ci loolu lañu ñu yi di xaare kilifa yooyu foofu la ñuy xaare ñu liggéey ndax jàmm sax Sénégal man àdduna du dox ba ma ànd ak président Macky bokkuñu gis-gis bokkuñu boor politique man duma ma warkat man duma ma dóorkatu marto man je m'appelle Barthélémy Diaz te am na lu ma dul nangut c'est fini ça c'est fini munoo ànd ak nit boole ko ci lépp mais yow nit bu ngay woo une heure du matin mais parce que yaa ngi koy yëgal ci lu nga nekk kooku franchement amoo amoo loo koy nëpp te nit ki su la waxoon jamono yooyu d'accorduma nga ne ko kon nag comme d'accordoo ma arrêté janvier laa wax 26 janvier 2023 il y a presque quatre mois laa lancé appel kenn amul benn leader yéen ay journal ay journalistes ngeen sénégalais ñu ngi may dégg. amul benn leader politique bu woo Barthélemy Diaz wala woo leader politique bu Barthélemy Diaz wala taxaw ne ñoom d' accord ñu ci appel bu Barthélemy Diaz une fois de plus c' est l' appel de Barthélemy Diaz nan na ngeen ma ko nangul ba tax su ngeen bëggulee jàmm eh, bëggu leen jàmm ñu déggee ko noonu mais man Barthélemy Diaz gëm naa ni que jàmm mën nañ ci am ndam mën nañ ci jaar ba am ndam moom laa gëm. maintenant nag suñu waxtaanee suñu biir du ñu déggoo. man président Macky Sall ci boppam wax naa ko ma ne ko ah président boobu baax da xam nooy boote sa njaboot rek ñun tamit ñu xam ni ñuy boote suñu bos. ma ne ko parce que président ñun am na ay point on ne sera jamais d' accord du ñu mës a d' accord ci sa troisième mandat duñ ko mës duñ ci mës a d' accord ñu mës a d' accord ci ngay bëgg éliminer ay nit. du ñu mësa a d' accord ci ñu nga jot a éliminé ba pare te tey nga bañ leen may affaire ñu mën a bokkaat ma ne ko lu ci des yëpp ay waxu ay dialogue ay waxu ay fichier électoral ay révision article L29 article L30 yooyu ay détails la mën nañ ci d'accord wante président man lu ma gën a ñor dama bëgg a dalal sa xel nga xam ne ni gaañ yi ñoo ko seqal ay ndaanaan lañu ay nitu jàmm lañu te dañ lay yéene jàmm fii kenn du la tëj kaso kenn du la topp kenn du la sonal ku ci buggul bokk bul bokk mais nag soo taxawee nga ne ñu ñun dinañ amel askanu Sénégal ak amaana suñu demee jëlee euh, amnistie laquelle amnistie yaa ko njëkk a proposé jëm ko défendre bu ñuy installé charte yeewi askan wi y a un problème parce que soo jàppee ñu ne amnistie ñit mën na ci am ak man naa la wax man gàddu àqu amnistie moo ma gënal gàddu àqu ay ban ay bakkan ñu doon fa laa yem ci wax ci et si les gens veulent continuer à parler je vous dis que je parlerai parce que man sénégalais yi ñoo ma ñor man je suis pas candidat c'est pas mon problème parce que man suma problème mooy lem mooy na civil jël pouvoir te su desee ci man kese na civil boobu bàyyeeku ci coalition Yewwi Askan Wi man ànd fi di politique yéen xam ne nu ma daj ci politique ba ñuy fal président Macky Sall man maa ngi woon ci kaso bi xeex naa xeex awma ci ndam keneen moo jël ndam gi dem ak moom dama sonn ak tay ci di xeex keneen di falu man lu ma bëgg tey mooy président bi bàyyeeku ci yeewi askan wi moom laay xeex moom laa gëm te képp kuy leader yeewi askan wi man yéene naa la nga doon président du Sénégal ak noo munti tudd Malick Gakou Déthié Fall Ousmane Sonko et mon candidat s'appelle Khalifa Sall mais xanaa nag ça c'est mon droit ñu ne dañu ci saaga waaw on continue di ngeen bàyyi saaga wala di ngeen jël la responsabilité d'assumer jusqu'au bout parce que lu ngeen di def tegu leen ko fen te fii ragal dëkku fi ragal dëkku fi fenkat dëkku fi naafeq nekku fi waaw. Euh, amoon naa rek euh, trois questions monsieur le maire pour pour ñu tënk ko question bu njëkk bi mooy euh, yow da amoon euh, image bu sénégalais amoon si yow mooy nit ku tàng souvent sax ñu ne Barthélemy dafa bëri histoire et tout mës la invité émission Walf TV nga ni ba kaalifa Sall di dem ca. Macky Sall ba Covid bi ñëwee yow bokkoo bokkoon nga si ñi ko doon wax ni d'accord si loolu lan moo am entre nag ba say discours di évoluer yow mi bañoon dialogue tey nga nekk tey instigateur bu nekk apôtre euh, du dialogue euh, politique. beneen question bi mooy euh, cour cour suprême war na addu ci fan yii di ñëw ci sa procès en appel ci mbirum njaga Diouf. loolu euh, peine bi bu ñu ko confirme mën nga ñàkk sa poste euh, ca assemblée nationale et même probablement ca mairie bu Dakar même si nee nga d'accord ci ci loolu est-ce que loolu aussi également épée de Damoclès boobu euh, bokkul ci li la gën a poussé tey nga bëgg toog négocier ak li nga xam ne mooy koy mooy président de la république maanaam ngeen ngeen dialogué beneen question bi mooy dama gis ni sa discours dafa évoluer ci wàllum troisième mandat. sànq nee nga ba nga jàkkaarloo ak président nee nga ko carrément amul droit troisième mandat mais bu ñu yéegee ci gannaaw ci benn entretien télévisé boo defoon nee nga président Macky Sall am na droit def troisième mandat lan moo waral sa discours évolué ci euh, euh, question mandat bi merci. dinaa commencé foo ko daanelee mon cher Pierre d' man du ma juriste man su ma neexee ne man juum naa ci mbiru question ou constitution parce que man du ma man ba may wax lu may wax ci référendum la woon ma ne Sénégal yi na ngeen wootee non. te tey am naa dëgg ci kaw sénégalais yi parce que suñu wote woon noo heure bi heure bi duñu toog fii di wax waxu troisième mandat du président Macky Sall moo leen waxoon bu leen déglu ñoom Barthélemy dañuy fooy seen xel ñeneen ñi génn ne nul ne peut je répète nul ne peut je répète nul ne du du loolu la gars nekkoon fii di wax ak ñeneen ak ñeneen man leen su ngeen ko defee di ngeen mere ku leen deful dara suba tey la preuve mi ngi nii beneen bi. mooy ba may wax lu may wax aw ma woon information ki consistait à dire parce que loolu juriste bu ma ko mujjee wax mu ne ma monsieur le maire lu ngeen di wax yëpp amul solo ma ne ko lu tax mu ne ma monsieur le maire président Macky Sall moom moo leen gën a xam ne amul droit troisième mandat ma ne ko lu tax mu ne ma parce que président Macky Sall moom xam na bu baax a baax que ba président Abdoulaye Wade di falu 2000 constitution bu mu fi fekkoon bu muy ñëw 2000 limité wu loon mandat yi à donc moom constitution bu bees bu mu voté woon 2001 moom xam na que lu tubaab di woowe la loi n'est pas rétroactive donc constitution 2001 moom day commencé compter premier mandat bi bu président Abdoulaye Wade bi yëkkati loxoom pour la première fois te bu mu koy def 2000 la woon donc constitution 2001 moom mi ngi considéré premier mandat Abdoulaye Wade 2007 moo tax. ba Abdoulaye Wade di xëccoo ak ñun ñu ne ko amoo droit mu ne am naa droit ñoom ñu ne Abdoulaye Wade am na droit parce que constitution 2001 bi day compter mandat 2007 ak éventuellement mandat 2012. mu ne ma wante monsieur le maire mu ne ko nam mu ne mais Macky Sall muy ñëw fii moom mi ngi fi fekk si fii constitution bu fi Abdoulaye Wade bàyyi woon te constitution boobu limité na déjà mandat yi à deux te président deful. Euh, deful constitution bu bes ma ne ko ah bon mu ne ma déedéet mu ne ma révision de la constitution lay def ci 16 points kon moom lu mu fi fekkoon mooy lu fi ab Wade wote woon ci 2001 te moom la fi fekk bu muy ñëw 2012 euh, euh, nee na ma lu constitution waxoon ci limitation des mandats moom constitution bu mu laalaat moom la waxaat rek ci limitation des mandats. te constitution lu mu jàppee mandat mooy prestation de serment kon ñaata yoon le président Macky Sall yëkkati ci loxoom ma ne ko ah professeur ba ma njaaxum mu ne ma ah na ku nekk yem ci xam-xamam mu ne ma yow waxu politique nga xam bàyyi ñëwaat waxu élection ma ne ko ah kon wax ngeen dëgg donc ci côté boobu noonu laa bëggee Sénégalais yi déggee ko noonu te si j'ai induit des Sénégalais en erreur maa ngi leen di jéggalu wante man nekkuma fii pour di téema tuur lëndëm nit ñi wala di lëndëmal xelu nit ñi ça bi loolu laa bëggoon wax ci sa question concernant ma position sur l'évolution du discours sur le troisième mandat non et ak discussion boobu moo am ak constitutionnaliste boobu tey heure bi nii président Macky Sall amul droit am troisième mandat wante moom wax dëgg yàlla waxuma est-ce que day def troisième mandat wala def troisième mandat mu ne ma da ngeen bëgg ñu waxtaanee ko mu ne ko waaw mu ne ma ok d'accord dëgg naa la mais loolu xanaa mën nañu comme moom nee na am na ay argument ñun am nañu ay argument beneen bi yaa ngi ne euh, nu ma gars yi doon xoolee man nit bu tàng laa woon daanaka ci gàttal sax nit nitu na laa woon ah, waxoo sax lépp parce ba gars yi dëppee kees yi ba ñu génnee élection présidentielle 2019 Khalifa Sall nekk ci kaso bi ñuy taxaw tey dina du ñu dem dialogue ñoom demoon nañ dialogue Khalifa nekkoon ci kaso bi ñoom ñu dem dialogue Khalifa Sall ci boppam moom tamit mu nangu dem dialogue man ma lank bañ Khalifa Sall bu muy dem ci affaire du Covid 19 ma lank bañ Khalifa Sall bu mu ñàkkee waajuram bu jigéen président ñoo di ko jaale si ma lank bañ ñoo toog fekkee. nous sommes à dix mois d'une élection présidentielle ku nekk ngi tey kii nee na force restera à la loi kee nee na force restera au peuple ku nekk yaa ngi menacé sa morom man bokkuma ci élection bu ma xam ngeen su ma neexoon toog fii suma place di lijjanti suma néegi Dakar tranquillement te am naa lu ma doy sëkk nag ma ne man lu may gis nii su ma toogee di seetaan lii muy mujje gisuma fa ndox parce que lu ma gis mooy benn buum ku nekk ñi xëcc ku nekk ñi xëcc ku nekk ñi xëcc kenn bëggul bàyyi te ala kuliyaal buum bi dina dagg te mais dégalaat wax ji bés bu daggee ñaari côté ñëpp ay xalangu parce que lu may gis nii nekkatul politique ab jëfu caaxaan la ak biru fooy sa xel la du parce que xel mooy politique xol du politique ci politique xel mooy xeex xol du xeex ma gis président Macky Sall téye bañ a bàyyi ma gis suma gaañ ñu téye bañ a bàyyi man mi tamit ma bokk tamit ci gaay tamit di téye ma xam tamit suma bopp ma ne ah comme jàmm wolof njaay na na jàmm ci de lépp a xaj naa jéemoo lancé appel comme président joxoon naa ko lettre nekkoon na ma dalal pour mairie Dakar mu mu ignoré ma tontuwu ma ma ne ah naa lancé bi yoon un appel public le 26 janvier 2023 sur Walfadjri et sur Seneweb en grand format j'ai lancé un appel à partir de cet appel là wax naa leen lépp lu ma def yaa ngi wax léegi nii lu tax ma assagiru dama am ay doom yu góor maintenant damay yeewu ci kër gi di dégg yow est-ce que gis nga paa bi yow yow lan la paa bi wax jànq yi sax ci kër gi day eh, ana paa bi lan la paa bi wax man dama jàppoon ni dañu doon wax ci waxu paa bi suñu pap parce que ci kër gi laa dëkk ah ba ma demee ba ci biir ma gis te ni ko su ñuy wax waxu paa bi man la ñuy waxal ma ne comme maintenant man xale yi dañ jàpp ne man paa laa man suma taaw il a 23 ans man su ma taaw tey mën naa am doom mën naa am soxna mën naa am donc tey du ma doon def yaa dix ans ci ginnaaw tey di nekkatul suma cër man ba ma naroon xeex xeex naa Sénégal ba ma naroon euh, tëdd kaso tëdd naa kaso j'ai tout fait dans ce pays moo tax tey su ma déggee ñenn ñi di wax ne ni que ñoom lu ñu dund lu ñu vivre kenn mësu ko fi dund Sénégal dama ne Sénégalais yan laay waxal fii am na benn góor bu ñu doon wooye président Mamadou Dia yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yu gën a kawe yi kooku duñ ko def Sénégal yàlla buñ ko fi defee ci doomu aadama Sénégal kooku xeetu toroxal buñ ko toroxal Sénégal yàlla bu buñ fi mës a tox toroxal ci ñit Sénégal euh, de cette façon jamais de la vie kooku moo nekkoon équivalent premier ministre tey parce que génération future yi xamuñu il faut ñu xamal leen kooku dañ ko jaay doole tëj ko kaso bañ koy tëj kaso Sénégal lu fu doon yeewu ci ay doomu aadama matuñu woon 5 millions laa wax biir Sénégal bi yëpp ñu boom fii Sénégal biir bakaat fii ñu boom lu ëpp cent personnes surtout fii centenaire doo leen ay bal rey leen cent personnes jamono boobu amul internet jamono boobu amul réseaux sociaux jamono boobu amul journaux jamono boobu benn parti politique rek moo am Sénégal. donc il faut savoir raison garder tey wax sénégalais yi dëgg l'homme qui a le plus souffert au Sénégal s'appelle du Dia tëdd kaso 12 ans génn ñàkk ay bëtam il est mort aveugle kooku lu mu daj pour Sénégal yàlla bu kenn ci ñun yàlla bu ko kenn daj pour le pour le Sénégal respectons les Sénégalais ku nekk ci ñun fii xeexal nga Sénégal ci lu nga mën ak ci lu nga xam loolu mooy dëgg beneen bi yaa ngi may la première question c'était Ndiaga Diouf ah waaw mais mais Pierre <laughs> mais yow Pierre yow yaa gën a xam ne man dañu may condamné t'as-tu laissé yow xam nga ne dañu may Pierre mais parce que Pierre Sénégal wax nañ ko justice bi wax dëgg yàlla justice bi kenn amatu ci yaakaar kenn amatu ci yaakaar tey posture Ousmane Sonko je du ma ko du ma ko commenté dama ko respecté c'est son droit. man munuma xas kenn kuy jóg tey ne man daw ma wuy tribunal man ñaata yoon lañ ma convoqué fii ma ne man ñëwuma yéen xam ngeen ci dara fekk ngeen lépp yéen da ngeen fekkee démb ak bërki démb Sénégal bi dara beesu fi fii gars yi ñooy fay seen xel rek dara beesu fi fii tey am na benn candidat su amee élection suba moom day bokk mais apparemment ci lu ñuy gis ñun parce que ñun ay acteurs politiques lañu yéen ay observateurs politiques ngeen yéen xam ngeen bu baax que ñu ngi koy jéem a galgal dara beesu fi xanaa Khalifa Sall kenn kenn galgal ko fi lu tax ñu galgal Khalifa Sall parce que lu sondage yi waxoon mooy su bokkoon élection présidentielle 2019 amoon na làmbaay ñaaw kon fii dara beesu fi mais Khalifa Sall bañ koy tabaxal. tëj ko ci kaso bi fokkati ay mandaam musul saalit musul saaga kenn musul xas kenn musul gaaruwaale kenn teg ci nag képp ku buggoon doon candidat musul xas sa candidature képp ku fi campagne musul a xas teg ci nag tëdd kaso ay ñëpp ñëw di ko fekk si ci kaso bi di sàkku ci moom son soutien Khalifa Sall a été digne jusqu'au bout Khalifa Sall mérité wul tey luñ koy teg te dama ne dañu dul toogati di ko seetaan yéen bi ci kanam lu bët dañ dem rek moom ma ñëw dans l'affaire Ndiaga Diouf non dans l'affaire de Ndiaga Diouf ma ñëw dans l'affaire Ndiaga Diouf dañ ma jugé première instance man leen da nga ne ma jaay doole damay appel ñu ne ma baxte bu appel parce que gaañee ñoom bëgguñu appel na koy yemalee fii man leen su ngeen ma condamné woon benn fan ak ma fay dërëm laa wax dërëm dërëmu euh, alamande damay appel ma dem appel gars yi jaayeen ma doole waa ku la jaay doole première instance jaay la doole appel mais dina la jaay doole cassation xam naa président Macky Sall sax xam naa dafa xaw a jaaxle quoi parce que xam naa il doit se poser la question lu tax Barth waxul ci waxu dossier Ndiaga Diouf parce que kippéewu ko dundu ko man xam naa defuma dara maintenant nag dinañ ma condamné loolu ñëpp xam nañ ko man xam naa dinañ ma condamné les conséquences dinaa perte suma mandat député xam naa ko wante man assemblée bu nga xam ne nii man xam naa ni que fii ak at dañ koy tas man nga dàq ba ci assemblée bi ak ñàkk ma dàq ci assemblée bi man loolu loolu yëngalu ma wante fii mairie Dakar dama bëgg dalal seen xel parce que wolof Njaay nee na saay saay waxul dëgg wante mu ngi jéem a yàq xel xalaat xol ak yéene. wax leen ak bépp avocat je vous invite à aller consulter maître Demba Ciré Bathily et maître au besoin Cheikh Khoureyssi Ba je resterai maire de Dakar et ce n'est pas un souhait que je dis ce n'est pas une opinion c'est la c'est le code de procédure pénale je ne serai pas déchu de mon mandat de maire ils vous donneront les éléments d'appréciation j'ai répondu à tout il reste encore waaw ci wolof toujours waaw. à la grande puissance de sainte volonté, qui est l'amour et la miséricorde même. Par notre Seigneur Jésus-Christ, roi de miséricorde, qui, avec toi et le Saint-Esprit, nous témoigne sa miséricorde dans les siècles des siècles. Amen. Ô sang et eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde bon da nga dama lay laaj yow comme ñu ñëpp ay Sénégalais lañu fii su ma ne fii chinois amu fi hmm, ñëpp ay Sénégalais lañu waaw ku nga xam ne nii jekk na ci mën a doon candidat élection présidentielle amul dara lu ko teree mu doon candidat kooku dem ba ne man suma candidat mu ngi tudd xalifa Ababacar Sall moom laay ñaan yàlla mu mën a bokk ci élection yi ma mën ko jàppale wante su ko yàlla mayulee aafiya ma tudd tur ma ne man Ousmane Sonko bu Pastef laay jàppale waa kooku wàccoo naa ak moom wala wàccoowuma ak moom dama leen di laaj Sénégalais ñu ngi may dégg wax dëgg yàlla kooku su luñ ko wax noonu su ko doyut amul leneen lu koy doy te wax dëgg yàlla man politique du ma doxaan kenn ci politique dañuy ànd rek te yàlla tax boo ko gis-gis boo ko yéene maa ngi jógu nag ci kàddu yi nag parce que amaana peut-être kàddu yi xaw a xaw xaw a xaw a wante daal man politique daal nu ma leen ko waxee parce que wolof yi xóotul doxaanu mu ci kenn dañu mën a ànd rek beneen bi mooy euh, te tamit du ci neexal kenn du ci neexal kenn mu du am dañuy ànd ndax bokk gis-gis ndax bokk yéene ndax bokk pas-pas ak Pastef loolu rekk fi am kon man lu ma jàpp mooy mënuma la yéene nga doon président du Sénégal et en même temps ma yéene la safaan mënul nekk ma wax ko publiquement beneen bi parce que seen question yi da ngeen di day day teglu la beneen bi ban wax nga ci waxu relation bi avec Ousmane et quoi d'autre. booy ban noonu. mooy bi nga <coughs> sa diggante ak sa papa. non boobu boobu dama ci xaw solo boobu boobu. askan wi ci tey nii yow ak Ousmane Sonko ndax dina jeex bu subaa wala nii bu wéyee parce que nee na moom àndu ci dialogue te yow. nee na mais ma bëggoon la wax loolu. yow xam nga nee naa la Ousmane Sonko ba may lancer sama appel le 26 janvier fan ngeen mës a déggee Ousmane Sonko ne d' accord yow nga wax ma fan. ñetti weer ak lu tegu presque ñeenti weer musul waxtu ma ko moom d'accord Ousmane Sonko wax naa leen damay lancé appel bi mu am ay nit yu bàyyi ko ci njabootu président Macky Sall di dox ay tànku jàmm pour jéem a xool sincérité suma appel man moo tax ma ne président Macky Sall du sa appel suma bos la ba ñu dem ba gis sincérité bi parce que ñooñu saay bu ñu doon ñëw dañu doon ñëw suma kër fu ma dëkk baobab ba leen di gërëm di leen di sant parce que lu ñuy def mënoon ils n'avaient aucun intérêt à le faire ils fait ma leen di gërëm leen di sant ñu ne monsieur le maire ñun dañ la dégg nga woote jàmm ñun tamit lu ñu bëgg gis Sénégal mooy jàmm kon wax ñu yow noo ko gisee lépp lu may jokkoo ak ñoom di wax ak ñoom maa ngi jokkoo ak Ousmane Sonko maa ngi jokkoo ak Khalifa Sall kenn ci ñoom musuma wax d'accorduma du Ousmane Sonko nee leen président Macky Sall dalal na fi nit waxtu bi ba waxtu bi mu ne une heure du matin man maa ko waaye nit bu ngay woo une heure du matin da nga ko fonk wala fonkoo ko nit booy woo une heure du matin da nga ko respecté wala respecté woo ko man fan la ñu bindee que moi je dois faire un compte rendu à Khalifa Sall waa Ousmane Sonko mais parce que ma gën dialogue bi ma gën na ni que ñoom tamit ay nitu jàmm lañu ma gën na ni que président Macky Sall amaan na mën naa ko bañ a nax wante mën naa am lu mu bëgg ci tey nag gaa ñi taxaw ñenn ñi sax ñu ngi xataraayu waaw mais ñuy toog ne leen ñoom ñu dialogue mais dafa am lu ñu leen fàtte wax ñoom su amoon élection suba ñoom ils sont éligibles ñoom dañuy bokk waaw lu tax yow nga bëgg a bokk te man nga bañ man nga yow yow yow yow nga bañ ma nangul man ma jëm a xool man nan laay def ba bokk te yow ne nga yow pour nga mën a bokk yow jaral na la ay bakken rab man ma ne la man pour ma bokk jaral na ma man ma dem dialogue wallaay wallaay loolu jarul jarul jarul nga ma ciy saaga du ma ko nanguti c'est fini su lépp naroo yàqu ñu xam ne day yàqu yàqeet wax bi jeex ñëpp ànd na ñàq mais boobaa nag na ko Sénégalais yi déggee noonu luy yàqu du bàyyi ko ci ñun parce que attaqué wuñu kenn saaguñu kenn xasuñu kenn wante nag du ñu ay yaafuus te duñu ay ragal te tamit duñu ay naaféq te duñu ay fenkat

mais taxaw fii di man duma Khalifa Sall mais bien sûr que tu t'appelles pas Khalifa Sall parce qu'on sait qu'à l'état civil tu t'appelles pas Khalifa Sall on le sait merci et merci pour la précision aussi. waaye ñoom dañoo amoon na dialogue bu ñu fi defoon ñoom dañoo jàpp ni tout ça pour ça lañ ko tuddee tey jii nga ñëw wax ni dañoo war a defaat beneen dialogue ñoom ñi ngi wax ni. moom Macky Sall président Macky Sall da leen di lalal ay ay ndigg sërëx yoo xam ni buñ ca demee mën nañ ci am lu lu leen ci lor yow tey jii nga toog ni sa xel dal na ci dialogue bi est-ce que jàppoon ni ñoom perception bi ñu am ak yow perception bi nga am bokkuñu parce que ñoom dañoo jàpp ni ndigg sërëx lañ leen dalal ci dialogue bi. non lan moo lan moo war a dalal sa xel. ba nga ba nga mais ñoom mais ñoom mais ñoom ñoom nee nañu tey d'accord d'accord ñu ci dialogue bi du loolu ñoom ba ba ñuy dëpp kees bi ci élection président 2019 ba ñuy dem dialogue yi ba ñuy dem di dialogue di di dialogue président di dialogue ak président présidence fan la Khalifa Sall nekkoon du ci kaso bi waaw lan lañ fa jël ñoom dialogue bi dara parce que à l'époque déjà j'avais dit le dialogue n'était pas sincère on cherchait à valider un hold-up électoral ñoom ñu dem parce que ci ñoom amoon na dana danaa ko wax fii tey dafa amoon ñu jàppoo ni day am gouvernement d'ouverture ñu ñu am ci ay poste de ministre loolu mooy dëgg ñun tey dialogue bu ñuy wootee xaaruñu gouvernement union wutuñu ministre namuñu dara dañu bëgg waxtaan mën a dalal xelu président Macky Sall te waxuma dama am yaakaar ci dialogue bi dama ne man lancé naa un appel au dialogue ba ma koy lancé personne ne s'est opposé mais man Barthélémy Dias je suis assez audible et visible dans ce pays damay joxe exemple le 26 janvier 2023 su ma waxoon damay laajte su ma waxoon ñun d'accord nañ pour que président Macky def troisième mandat est-ce que xalaat ngeen une seconde que waa Yewwi Askan Wi dañu ne muut leen di laaj rek yéen ñi yéen askan bi may leen di laaj su ma waxoon le 26 janvier 2023 Macky Sall am na droit am troisième mandat te ñun waa Yewwi Askan Wi dañu ci doon ànd est-ce que xalaat ngeen ni que waa Yewwi Askan Wi dañuy noppi di ma di toog di ma seetaan vous allez réagir donc moi le 26 janvier 2023 j'ai lancé un appel au dialogue personne ne s'est opposé et ceux qui s'opposent aujourd'hui je le répète ils sont éligibles on n'est pas éligible et ceux qui se ceux mënuñu leen wax lan lañu dox wala wax wala jëf pour que Khalifa Sall bokk ci élection yi lu tax ñoom ñoom kese ñoom kepp ñoom rek ñoom dong mel ni ñun bokkuñu si affaire bi ñu commencé bëgg ñu la leneen ah. léegi ci ñetteelu mandat bi ndax tey jii xel nangu na ku bokkul ci élection yi maanaam d'accord ci ci ñetteelu mandat bi ñuy wax kooku mar naa war a war a woote dialogue comprendre ma question bi nga ne. ma ni ndax tey xel nangu na. koo xamante ni nee nañu warut bokk ci élection yi ñu dëgmal ndax kooku war naa war a jo woote ay dialogue pour pour waxtaan ci ci tolluwaay réew mi. waaw mais yow man mbëgg a wax ci leer. Mhm. Khalifa Sall même su ma bëggoon ànd ak moom tey ne ko kaay ñu génn ci mbedd bi na ay bakken root dinañ doon candidat dama ko xam dina ma ne buggutuma doon candidat. Khalifa Sall ba mu nekk ci kaso bi il n'a posé aucun acte pour soi-disant ñu génne ko bañ koy tere mu doon candidat ba muy génn kaso bi il n'a posé aucun acte pour forcer quoi que ce soit lu tax tey ngeen bëgg ko bañal moom mu mën a dem vers un dialogue waaw yéen maintenant yéen ñuy taxaw di nekk dañuy boom ay sénégalais seen yaay juraat yéen lan moo ci seen xalaat yéen amu leen ci benn xalaat. yow est-ce que yow dina nangu yow sa doom dem ñu boom ko xam lay laaj yow. mais ñoom waxee woon nga noonu de. xam nga ñun ñu ngi ci dëkk bi dëkkuñu Chine ñun fi dañu dëkk lu gars yi di wax ñu dégg am ay nopp nag mën a dégg tëxuñu wa ah. lu waay wax respecté nañu sa stratégie musuñu ko commenté parce que ku nekk ak noo ko gisee ak noo ko noo ko sentiré yow ne nga noonu nga fas yéene résister nangul nañ la ko. wante ñun nee nañu ñun dañuy résister wante ñun gëm nañ ko dialogue mën na indi dara Sénégal ñuy taxaw tey di nekk Khalifa Sall amul dara su demee élection du am dara Khalifa Sall bu muy commencé di politique ñuy nekk fi yëpp di wax kenn ci ñoom ci dugguloon Khalifa Sall a 50 ans d' actif politique faut respecter les gens lu parti socialiste liggéey biir Sénégal nga taxaw ne socialiste yi amuñu fi dara nañu tëgg élection yi ngeen xool politique du làmmiñ politique jëf la il faut qu'on se comprenne lu xalifa di am lu xalifa dul am yoonu kenn newu ci may may la ñu rek ni bokk ci élection yi di ngeen xam ne ay ndaanaan ñi ngi soog ñoo bokk ci élection yi da ngeen foog ni ñun dañuy dem élection rek pour lan pour figuration nekk mu neex nag fooyee xelam man su ma neexee tey fëgg su ma dënn ne leen man su ma bokkee élection premier tour damay gagné su ma neexee wax ko mais nag am na ñuy wax di jëf man waxoon naa ne su ma demee élection 19 heures 30 naa ngi jubilé def naa ko su ma baat ci kaw dama ne fii pour nga doon président du Sénégal premier tour daanaka foog nga nekk yow candidat lu ñuy woowee coalition des coalitions maanaam nga doon par exemple candidat wu Yewwi ak wàllu fii ñuy wax ñëpp dañuy fural rek kenn amu fi cinq pour cent fii moom élection à la coulée second tour mars moo tax ñuy taxaw fii tey. je les invite à ne pas insulter l'avenir parce que du ñu xam fan la ñuy soxla am ay voi il faut qu'on apprenne à se respecter à se tolérer à s'apprécier fii àdduna la lii du dara ay post dara président de la république lii àdduna la te man je vous déjà dit lu ma lancé appel kenn musu ci kenn ci ñoom musu ci opposé wu lu gars di dem di dikk yëpp yëgal naa leen ñoom ñëpp ci lu ma nekk kenn ci ñoom mosu mu ne Barth arrêté d' accord yow ku dem benn la Barth la gën a ne une heure du matin woo ma mais parce que d' accord ci lu mu doon dox parce que moom jox naa ko cër bu toll su ma waxoon dès le début lii d' accord uma ci lii sentiruma ko du ma ci xuus man du ma candidat kon je je je cherche à à créer les conditions d' élection pour qui pas pour moi. man nga condamné ma euh, dose Ndiaga Diouf c' est pas mon problème man bokkuma élection c' est pas mon problème <laughs> donc man comprendre ma lu tax autant d' excitation d' agitation autant d' émotion et de passion pourquoi qui est-ce qu'on cherche à manipuler ici qui est-ce qu'on cherche à endormir ici te am na lu ma dul toog di ko seetaan parce que mi ngi commencé bëgg a ñuroo leneen et je vous ai dit ñëru ñëwuma fi tey pour teesante dama ñëw fi pour wax ak askan bi jox leen ma part de vérité man askanu Sénégal yàlla may na leen xel te yàlla may na leen dégg-dégg teg ci nag ñoom xam nañ ma man parce que maa ngi commencé naa di bëgg yàgg ci politique ils connaissent toutes les facettes de Barthélémy Diaz saabu du fa boppam mais am na fu ngeen xam ne du ma nangu mukk ji di ma fa dëkkaloo jamais de te dëkk bi lu ma fi daj je suis fier de l'avoir vécu si c'était à refaire je referais la même chose te Ousmane Sonko xam na ni est-ce que moom yore naa mu doon président am déet mais nañ ko teg ci yoon ci yoon rek suñ ko tegee ci yoon yàlla amaan na mën na ci def sutura mais ay ni euh, laa ko gisee ñëpp ki gisee noonu dama ne tu as tapé à la mauvaise porte ça marchera pas ici mon cher Bour. J'ai raté la mais en version wolof euh, vous avez dit que yow yaa initié li nga xam ne moom mooy dialogue bi li ma bëgg a xam mooy est-ce que vous avez confiance au président Macky Sall parce que ñu bëri ñu ngi wax ne defoon ngeen fi dialogue waxtaan ngeen mais amul ci benn engagement boo xamante ni am na diggante moom ak opposition boo xam ne respecté nañ ko. est-ce que d'abord vous avez l'engagement du président Macky Sall que li nga xamante ni boo leen di demee dialogue di ngeen ko euh, moom président Macky après mën na ko appliquer ñaareel bi c'est la première fois et puis c'est un peu étonnant que euh, da ngay gis nañ ci conférence de presse yi vous avez attaqué euh, à votre frère comme vous avez l'habitude de, de l'appeler le président son Sonko est-ce que c'est le début euh, d'un kii de séparation wala de de guerre par presse Euh, euh, buur dinaa commencer foo daanale buur man attaqué wu ma kenn buur je parle avec les sénégalais parce que temps yi ñu bëri ñu ngi wax ñu leen di bàyyi ñuy wax ñuy wax di wax ci réseaux sociaux yi ñu ñu bëgg a dëkkaloo fu ñu dëkkul am na wala amul j'ai décidé de donner ma part de vérité aux Sénégalais les Sénégalais ont entendu tous les sons de cloche gaañ yi su ñu bëggee ñu continuer di wax ma topp leen ci loolu tamit Et si les gens passent au niveau des preuves, chacun apportera les preuves qu'il a. je pense qu'on n'arrivera pas là. Parce que c'est comme si on cherche à manipuler un, le peuple sénégalais pour tirer la couverture d'un côté. Maintenant, mais c'est le sentiment que j'ai. Et c'est le que l'écrasante majorité des militants et des sympathisants de Tahaou Sénégal ont. Ils considèrent que Nunko Circle, ils n'ont pas du tout été, été, été élégants. Taï, de réseaux sociaux Dans Facebook ñu ngi yekkal xalifa Sall mais kenn xamul yi lan la fu ñu ko teg fu ñu ko teg xam ngeen maa ngi jógoo nag ci kàddu yi reewantu tubéy la ku mu neex sol ku mu neex sumi xam ngeen wax naa leen lu tax ma choisir format bi amul kenn ci yéen fii kuy fii journaliste sénégalais yi respecté wuñu la ci sa taxawaay amul kenn fii ku nga xam ne ni ñëw nga ñu ne la poser question wala bu poser question bi su ma neexoon léegi ñuy def live def quatre-vingt-quinze mille vues carte de crédit kese la du wane nañu président Macky Sall c'est l'homme le plus populaire du Sénégal du loolu loolu la gaay wax moom def na quatre-vingt mille vues am déet damay laajte rek naka les hommes di nekk ay populaire def ay quatre-vingt mille vues j'ai choisi ce schéma pour parler avec les Sénégalais sans aucune limite et sans aucun tabou sénégalais ils sont libres am nañ dégg-dégg xam nañ Barthélémy Dias xam xam nañ Mademba je le dis je le répète à ah, aux sénégalais d'écouter et d'apprécier sénégalais nag suñu jàppee ñu lu Barthélémy Dias wax yëpp ay kàcc la ah mais c'est bien y a pas de problème y a pas de problème tuumaaluma kenn wante du ma nanga kenn du ma tuumaal jamais de la vie je considère qu'un leader politique day am bàmmeelu biir parce que lu ñuy dox nii on le fait pour le Sénégal c'est important c'est important tout de même parce que tey xalaat leen les bonnes volontés ñu jot ñu jot dox ay tànk pour que président Macky Sall nangu toog ak man d'abord pour forum mondial mu nangu xam lu tax ma bëggoon mu ñëw toog ci forum bi présider ko beneen bi président bëgg a xam. est-ce que man mën naa jël engagement que le dialogue sera sincère lu ma ci jàng mooy si le président accepte toog ak Barthélémy Diaz du palais du këram terrain neutre parce que le président man lu ma jàpp moom tamit am na intérêt tamit ci dialogue bi parce que moom tamit il est conscient de la gravité de l'heure xam nga wolof Njaay nee na yàq ma gën a yomb defar yaa ngi jéem a arrangé gaa ngi jéem a dérangé ma ne mais c'est quoi cette histoire su ngeen jàppee ni nag lu ngeen nekkee nii mooy loolu mooy tax ngeen di bokk élection ah yàlla baax na yàlla ñëpp la fi nekkal wante man de lu ma gën te mu nekk lu ma gën dëgg-dëgg mooy Sénégalais ma jiital ci kilifa diine ñoom lu ñu bëgg mooy Sénégal jàmm am te jàmm sax fi maintenant nag tubaab nee na discuter ne veut pas dire se disputer mooy waxtaan ak xuloo bokkuñu te kenn waxul na ni que da ngeen di waxtaan ngeen juboo mais jéem leen au moins waxtaan ci lu ngeen xam ne ni yow président yow lan moo la ñor nga wax ñun lii moo la ñor ñu ñeneen la président ñun lii moo ñu ñor te man mais Biré du wax ci mënuñu fii muus waane ba waxtaan ba d'accord ci président def def troisième mandat mënul nekk mënuñu d'accord waxtaan ba d'accord ci président di bëgg a galgal ay nit pour ñu bañ a bokk ci élection yi alors fàtt naa waxtaan fàtt naa wax dara parce que dégg naa fii ci benn ci benn sorti benn leader politique mu nekk dialogue bi moom lu mu gëm mooy ñu fay dem dañuy dem pour dialoguer moom pour gàllal ko isolé ko yow loolu su nekkoon sa gëm-gëm tu as mon numéro de téléphone tu m'appelles au téléphone da nga ma ne doomu ndey écoute man lu mu gëm mooy dialogue bi su ngeen fa demee da ngeen ma bëgg a galgal ce n'est pas sérieux ce n'est pas gentil ce n'est pas responsable ça c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler au peuple sénégalais Et si les gens insistent, ils peuvent compter sur moi pour revenir à la charge. Parce que je reviendrai. Cette fois-ci, autrement. Et je vous dis une chose, je sais me battre. Je n'ai fait que me battre toute ma vie. Personne ne m'impressionne dans ce pays. Personne. Je respecte tout le monde. ngeen may ma nag ma gërëm leen sant leen gërëm askanu Sénégal di jéglu tamit askanu Sénégal peut-être ci ton bi wala format bi mais lu jot jot na te ma am yaakaar tamit que suñ génnee ci lii on sera mettre en avant l'intérêt national di gërëm ñëpp di ñaanal yëpp yàlla na yàlla euh, saxal jàmm Sénégal yàlla nañu yàlla yokkal sutura yàlla na yàlla kattanal Sénégal te yàlla nañu yàlla may ndam fu ñu jëm jërë ngeen jëf mbokk yi.